Vous, ne pourrez jamais être de bons patriotes si vous n'avez pas, ah si, si, si, vous avez, ah, si vous avez une vision ah aussi conformiste. Il faut avoir un minimum d'esprit critique. C'est clair, c'est clair. Alors, il faut il faut avoir un minimum d'esprit critique. Il faut avoir un minimum d'esprit critique. C'est comme si tous les combats qu'on a menés étaient inutiles, quoi. c'est clair c'est clair mënuñu méngale euh, euh, ñu baal ñu suñuy bor ñu bëgg ko méngale ak le président de la république bu jënd avion boo xamante ne pour kaaraange pour la waaw Fatou xam nga ce qui ñu baaloon tey suñuy bor ginnaaw suba dañuy àbbiwaat C'est dans la mentalité de nos gouvernants. Non, non, non, je sais bien ça. Monsieur il faut qu'on s'écoute s'il vous plaît. waaw nga baal ñu rek mais il faut ñu déggoonte ku nekk wax ku nekk ku nekk wax également mais ñu déglu ko rek ah, ñu euh, en fait notre vision de l'économie c'est une économie autofinancée et auto-entretenue et ça c'est bien possible on en a les ressources aussi bien humaines que matérielles mais qu'est-ce qu'on en a fait lu feeñ ci dëkk bi ñu jël ko jaay les entreprises les plus performantes ont été bradées. Mm-hmm. mais soo demee France il y a ce qu'on appelle Euh, l'agence pour les participants. L'agence avec vos fourgonnets là, vraiment dépassé nañu yooyu quoi. Non, écoutez-moi s'il vous plaît monsieur. C'est-à-dire depuis les années 60 dañu xeex loolu ba bu kenn doon ci réew mi. Mais votre génération là yéen a ko fi delloo. Seen génération yéen a ko fi delloo. Ñun loolu yëpp génnoon nañ ko ci réew mi. Seen génération ko fi delloo. France lañ jullee lañu jullee. Man en fait, man en fait, régime bi moom Kaabam France. <laughs> man man évoqué France en tant que modèle. parce que soo bàyyiwul ma jeexal doo bëgg xam li ma bëgg a wax doo xam fi ma jëm. damay évoqué France en tant que fulla ji ñu am ñoom. pourquoi ñun du ñu am autant de fulla ba mën a am suñu souveraineté ak suñu autonomie. mais France dañu am lu ñu wax euh, l' agence pour les participations de l' État. EDF électricité de France état français moo ko moom à quatre vingt quatorze pour cent. SNCF. la société de chemin de fer en France l' état français moo ko moom à cent pour cent. te ñi mës a dem France gis nañ rythme bi train yi demee ak ce que ça en terme d' argent frais et dispo. nit ñi gis nañ loolu. donc dama bëgg wax foofu c' est à dire puisque dañu nekk ci période de résilience gis nga corona bi ñëw dafa nekkoon benn genre bouée de sauvetage pour que ñu moomaat suñu bopp économiquement te on ne l'a pas fait. man cité wu ma France comme référence cité wu ma États-Unis comme référence aujourd'hui ils sont à plus de cent pour cent d'endettement la dette américaine est incompressible l'or qui garantissait la monnaie américaine détenue par la réserve fédérale mais est illocalisable xamantuñu sax mais le non non. nombre français font campagne pour l'annulation de la dette de la France. ce qui se passe la dette de la Grèce vous êtes au courant. Mais quand on parle de la dette africaine, vous. C'est pas la même chose. C'est vous qui protestez. ñu bàyyi ko mu yeggalee commercial nga am. amuloo amuloo ay quel est l'intérêt défendez-vous. li nga am ay commercial. quel est l'intérêt défendez-vous. est-ce que vous défendez nos intérêts à nous sénégalais africains ou bien est-ce que vous êtes au service. c'est pas des états. vous êtes au service d'autres intérêts. xam nga xam nga tey jii. Ah. léegi ñu bàyyi Mansour s'il vous plaît mu terminer bu ñu xoolee la crise financière de 2008 américain bi nekk en difficulté mais réserve fédérale day day mais day day la réserve fédérale bas du dollar. produit mais européens yi difficulté. ci corona bi planche à billets bi ñu nekkee qu'est-ce qui s'est passé. mais c'est la BCE qui a prêté de l'argent aux États ah, européens. mais ñun tey jii la la BCEAO qu'on a ici. mais la BCEAO ne prête quasiment pas de l'argent aux États c'est la BAD et les autres institutions mm-hmm. BAD ak yeneen institutions financières yi ñooy abal État yi et pourtant la banque est censée être notre banque centrale pourquoi mënuñu ñu mënuñu ñu mënuñu ñu mënul battre de la monnaie jox ko État yi pour ñu génn ci ndóol gi nekk parce que effectivement nous ne sommes pas monétairement souverains te loolu nag mooy xeex bi te sunu chef d'État yi ñoom ñoo ko gën a xam tubaab bi bu ñu amee problème mais seen banque centrale la ñuy dem mais ñun on ne peut pas aller au niveau de notre banque centrale. waaw mais vous êtes économiste monsieur Babou laissez-moi terminer. mais léegi la banque des règlements internationaux. Mm-hmm. qui la banque centrale des banques centrales qui regroupe 60 banques centrales mm-hmm. de par le monde mm-hmm. mais bokk ci pourquoi parce que nous sommes sous tutelle c'est une banque contrôlée par la France xam nga dafa am loo xam ne bu ko bëggee ñi yor sunu réew yi ko gën a xam sunu président yi ku leen yaakaar ne ay dof lañ yow yaay dof bi c'est ils sont très intelligents c'est des ingénieurs c'est des experts lu nekk lañ mais fi ñu war a xool dañu amul fitu xool fa pour extirper leur population de la misère bi nga xam ne ci lañ nekk te tey ji enjeu yi loolu la Afrique mënul dem te moomul boppam le sommet de Paris bii ñu demoon qu'est-ce qu'on va lan lañ fay def qu'est-ce qui va se décider à Paris pour le sort des Africains yi ñu defoon ay jàpp jóge foofu coloniser ñu pare bëgg ñu def ay góor jigéen bërki Dembo Ndiaye te ils sont sur ce projet. Mmh. par le biais de l'UNESCO qui est une institution des Nations Unies. loolu dafa doy waar cest à yooyu. loolu a topp waxu tubaab yi. non sa gars yi ñoo topp waxu tubaab. waxu tubaab non a bokk mais sa gars yi tubaab topp. dama ne li di wax. mais c'est norme c'est universel. sur la terre et sur tout ça il y a rien d'universel. waxu tubaab tubaab ñoo yor seen wax ba pare ne universel. xam nga topp ci naan c'est universel. bàyyi leen loolu. da ngeen fippu ngeen soppi tuuti seen xel yi. sinon. c'est-à-dire <laughs> euh, euh, arbitré quand même. c'est-à-dire gis nga gis nga sunu état yi. sunu état yi may ñu nag waaw. sunu état dañ leen jox sunu dañ leen jox sunu état sunu état dañ leen jox moyen jox leen confiance pour ñu génnee ñu ci situation de dépendance bi ñu nekk mais les peuples resteront soumis aussi longtemps que nos gouvernements accept, nos gouvernants accepteront de vivre sous tutelle mais tey jii le combat pour la souveraineté ñan ñoo ko porté. les sociétés civiles les jeunes ñoo ko porté. Hmm. mais état yi ñoo ci waroon njëkk. état bi fu jóge woon pour une souveraineté réelle peuple bi ñooy constituer un bouclier pour kenn du laal du laal. mais c' ça ce sont les états qui compromettent les destins des peuples loolu moo am Afrique loolu moo fi am. Mm-hmm. et la il faudrait inverser la tendance te ñun loolu moo tax ñu ñëw sur l'échiquier pour pouvoir changer les choses mais il faudrait également que nos nos états alalu askan wi ñu koy dugal dans des domaines qui sont prioritaires avion bi nga xam ni moom mooy moom lañ jëndee woon ci France mooy mooy muy muy le muy la 319 mm-hmm. était l'avion de commandement français même sur le parce que vous avez parlé tout à l'heure da nga wax léegi ci armée mais armée mais naka ngay fekk avion boo xam ni benn pays su état souverain la ko seen chef d' état utiliser ba soxlaatuñ ko nga koy jëndaat bu dee armée moo koy jënd en terme de sécurité mais loolu mais c' est problématique loolu dafa nekk loo xam ni dafa doy waar on ne peut pas se permettre de faire de telles erreurs au plan stratégique mun a nekk donc quand vous me dites c'est-à-dire que c' est civil mais qui est confié à la gestion militaire de l'armée. loolu dafa war a leer non non xam nga. je ne peux pas accepter que quelqu'un de faux soit dit ici. non non il y a rien de je suis obligé de rectifier. c'est pas ça non non il y a rien de faux. c'est un avion militaire. il y a rien de faux c'est pas l'armée qui décide de l'achat de de de de de de de l'avion du du du du président de la République. l'armée l'armée peut être sollicitée à titre technique. et contrôle et contrôle peut-être. l'armée peut être sollicitée l'armée peut hmm. être sollicitée à titre technique pour donner son avis et. faut pas assurer la gestion non non, je je, non non je n'invente rien du tout ce que je dis est fondé et vous ne pourrez pas prouver le contraire c'est ça le souci l'avion de commandement n'est pas un avion militaire la gestion qui assure la maintenance de l'avion de mais c'est pas l'armée sénégalaise boo ko euh, à la vie de ton président de la République ça repose la question de la souveraineté li ñuy wax ñun dañ ko xam te duñ ci inventé dara. mais souveraineté bi est-ce bokkul tey le président de la république bu luyee avion moom mooy fay peut-être personnel boo xamante ne ñi ko ko abal ñoom ñoo koy recruter ak li nga xam ne mooy maintenance bi yëpp donc li nga xam ne jël na ko ni dogal mënuñu jàpp ne. non peut-être bokk na ci li nga xam ne dafa yokk suñu souveraineté. nous ne sommes pas contre le principe de l'acquisition d'un avion à mettre à bi.